jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97 point 5 seen émission petit métier daal di dellu siwaat ci samedi ji euh, xam ngeen ne samedi bu jot ci réew mi FM bu 13h30 jotee jàpp 14h ngeen ànd ak seen mbokk du Khadre Seck ci émission bi di petit métier Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokki nag euh, tey dañoo invité Serigne Assane Mbow moom nag cordonnier la maroquinier Serigne Assane maa ngi lay nuyu. waaw sëñ Abdou Khadir Jiiri maa ngi lay nuyu di man tamit. ah yow cordonnier euh. nga ak maroquinier. waaw di la sant d'abord di la gërëm di la wax ne émission bi wax dëgg yàlla damaa ñëw li ñuy wax daf maa bett. waaye nag euh, lu toll ne euh, émission boo xam ne dafa jëm ci wàllu métier képp koo xamante woo nga ñu ci lépp lu ñu jàpp lañ koy bàyyi wuusi ci. alors di sa nuyu aussi waa Rewmi FM di nuyu waa Sénégal yëpp. dëgg la sa Assane. di santaat yàlla di wax ne métier mi nga xamante ne tey ci la ñuy waxtaanee muy cordonnerie ak maroquinerie. Hmm. dafa nekk métier moo xam ne dafa noble ci àddina. cordonnerie ak. ak maroquinerie ak maroquinerie. waaw cordonnerie mooy mooy tur wi. mooy tur wi euh, mooy turu kuy defar euh, mooy turu saak. saak. waaw xam nga bu ñu nee cordonnerie mooy lépp lu jëm ci wàllu euh, dàll. dàll. bu ñu nee maroquinerie mooy lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu saak. léegi bu dee ay pochette ak ak ceinture. waaw bu dee pochette ak ceinture loolu mi ngi jëm ci domaine toujours de domaine maroquinerie. waaw xam nga loolu nit ñu bari dañ ko war a xam parce que kii defar ceinture defar ay ay defar ay sac defar ay bracelet de montre loolu lépp mu ngi jëm ci domaine nu maroquinerie. maroquinerie. waaw maroquinerie. d'accord léegi euh, sëñ Assane Mbow. waa euh, léegi métier boobu la ñuy waxtaanee yow nag. Mhm. Euh, ñaata at nga si def sax. waaw métier mi mën naa wax ne def naa ci lu ëpp quarante cinq ans. quarante cinq ans. waaw parce que léegi dootuma xale donc mën naa wax ne sama enfance yëpp maa ngi ko def ci métier mi defee ko nag au village artisanal ah Soumbédioune nga dooree métier bi si booba à l'âge booba ñaataat nga am waaw Soumbédioune maa ngi fa dem ah, année ay presque ay soixante treize soixante quinze ah, ah. laa fa dem donc ba fay dem xale laa yàlla dogal na nag li ko sabab mooy bon teel a ñàkk jur ma dem fekk sama nijaay fa laa jàngi métier mi foo jógee woon ñëw ñëw ñëw foofu noonu Soumbédioune bon maa ngi jógee dakaar parce que man Dakar laa juddoo Dakar laa juddoo donc léegi lan moo tax demoo ci yeneen métier lu tax nga dem taamu coordonné waaw xam nga mooy li may wax rek en ni kii ki di nijaayam nekk parce que man sama papa tëgg la jàng sama maam tëgg la jàng mais comme gisatuma leen sama papa gaañu na donc sama nijaay li ma fekk mu def ko moom lay def loolu nag moo dal ñëpp ci wàllu ñeeño bi ñu nekk ni suñu asoru ñeeño bi waaw kenn ku ci nekk daanaka métier bi ngay jàng da ngay dem sa nijaay wala nga dem ci sa mag wala nga dem ci donc métier yi noonu lay demee. mais mais bu njëkk sax bu njëkk sax parce que loolu moo amoon da ngay nekk xale. ñu xool bu dee sa nijaay tailleur la wala mécanicien la wala dara waaw nga jàng nga jàng ah, kon yow daal euh, ba ngay am 17 ans nga ci duggoon. waaw bi may am daanaka environ ay 17 ans ci laa dugg ci métier bi. Ah, euh, bi nga duggee mi doon ko jàng sa Yaasan. ndax jàngin wi euh, metti woon na atelier bi dem ñëw jëli añ ñëw ak liggéey bi léeg-léeg nekk ak sa nijaay ndax amoon nay jafe-jafe. xam nga sujet bi ngay wax dëgg-dëgg sax mooy lool parce que métier mi boo ci nekkee di koy jàng jëlee añ boobu ci boppam loolu moo amatul parce que booba man atelier su ma jun booba atelier yi presque daanaka ñetti atelier ngay boole nga dem jëli seen añ donc dama ko daan yanu vraiment jógee euh, Colobane di yóbbu añ nit ñi dañ ma daan yërëm parce que bool bi ma daan yanu dina tàng tàngaay boo xamante ne ni li may def yoon bala maa ak suma jun ma yàlla rek koy xam yooyu nag mooy li ñuy wax tarbiya parce que nit ki da ngay toj su ko defee loo def ci xol loo euh, ji mu mën a dugg donc loolu loolu ci lay commencé ma noppi ma ñëw ci loo xamante ni aussi dañ koo war a xam xam nga cordonnerie ak maroquinerie dañu dafa nekk filière filière. xam nga mm-hmm. bu ñuy wax filière. waaw filière filière ci filière bu ñu koy wax mooy. Mm-hmm. xam nga ne mënoo am métier moomu te dugguloo ci wàllu euh, ñun dañoo seq ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ñiy def wàllu abatage abattage ñiy def affaire waaw ñiy def affaire élevage. Mm-hmm. ndax. kenn euh, kenn mënut a dem bàyyi sa moroom kenn mënu dem bàyyi sa moroom donc loolu mooy filière cuir ak po parce que kii yar jur gi euh, nga xamante ne jur gi ma nga ma nga tàmbalee ci bañ koy rendi ma nga tàmbalee ci kooka jur gi jël meew mi euh, ñu jël der bi di ko liggéey loolu mooy filière cuir ak peau parce que dafa yaatu filière bi léegi nag ñun ñi nga xamante ne ci nekk nag nekk ci cordonnerie ak maroquinerie euh, filière bi ma nga tàmbalee ci ñoom mi ngi teel a tàmbalee ci éleveur bi waa donc métier la moo xamante ne nii lépp émission bi dafay xat mais filière bi mi ngi tàmbalee ci éleveur bi. Mhm. soo ko ñëw ci euh, uude bi. parce que man ah. damaa jàng tanari ah. ndax damaa dama daan xëy dem ci baaj yi. di wuli ba ngoon jot. ma du ma sax ci place bi du ma jaar biir euh, artisanat. wuli mooy lan mooy nga jël der. Euh, dugal ko ci dans un premier temps mooy nga dugal ci produit chimique bu ñuy wax gaz. dañuy jël benn bassin nga jël der bi dugal ko fa. boo ko fa trempé trempé ko trempé ko fa nga bàyyi ko fa pendant presque deux jours soo ñëwee fekk na karaw karawu der bi dafay bàyyi nga dindi ko <coughs> soo ko dindee ba noppi nag am nañu beneen produit boo xam moom la ñu wax bu njëkkoon laxunde xam dañuy jël cox bi cox bi mooy euh, euh, cox xam nga ko cox. moom am dama doon gis der bi ñu siy sotti ay xorom ak yooyu aussi. waaw moom laa euh, xorom bi mooy jiitu parce que xorom bi der bi automatiquement rek mi ngi bi tabaski bi jàllee automatiquement boo rayee der da nga ci Euh, weñ yi duñ ko laal mu conserver mu téye deret ji ba nga xamante ne ni boo ko dugal ci gaz bi fekk na euh, mu am résistance ba mën a naan euh, gaz bi donc loolu ci la ñu commencé ñun jàng ci métier nga xamante soo jógee ci wuli bi soo ko jógee ci cox bi yóbbu ko ci nen na nen na bi nag mooy mooy yëy der der bi ba mu noy nepp yooyu nag léegi ba tey naar yi ñu ngi koy def mais Sénégal dafa war a romb foofu pour commencer parce que ça fait même pas un mois quarante cinq jours maa ngi oon Maroc ci xoole seen tànnare yi nan lay doxee euh, ba nga xamante ni dañu mën a nekk euh, en collaboration dans un futur ba nga xamante ni fii Sénégal war naa mën a am ay tanneries moderne parce que fi mu nekk ni Sénégal daf koo manqué. d'accord xam nga wàllu der waaw. waaw léegi sëñ Assane euh, Mbow xam nga yow sànq yaa ngi wax lu jëm ci wàllum der yeeg yooyu moo taxoon ñuy wax naan uude bi lu wax ci bëy wi rek der bee tax. waaw exactement mi ngi noonu. léegi ñu dellu si tuuti nag ci. Mhm. ci tërbiyu métier. ndax léegi dañu mhm. gis ne. xale yu baree bari euh, nangootuñoo jàng métier ñenn ñi bu ñu demee seeni nijaay tuuti lañ fay jàng euh, ber seen daaray bopp te fekk na mbir mi du mokk yow par rapport ba nga ko doon jàng ak léegi ndax gis nga ne euh, am na dife am na différence bu mag bu si am. waa différence bi mooy léegi métier mi dafa boo ko dee xool àggaguñu ci moderniser ko à cent pour cent mais léegi métier mi xale yi dañ koo mën wax dëgg yàlla ba léegi produit bu ñu la liggéeyal boo xamante ne produit fini la parce que matériel bi am léegi bu njëkkoon ñun amuñu ko woon. mais léegi matériel bi léegi ak euh, li ñuy wax mondialisation bi bunt yi ubbeeku na xale yi di dem nit ñi di dem euh, Europe di jënd ay der der yoo xamante ne peut-être du nekk sax qualité bi nga xamante ni moom lañ soxla à cent pour cent wala ñu wala matière wala moo xam kaw si bi wala lu mën ci doon. mais lan moo tax ñuy lan moo tax ñuy jëggaani produit boobu sëñ Assane te produit boobu ñu ko def fii produit boobu moom loolu foofu la amee problème parce que xam nga bu ñuy wax secteur artisanat damay wax ne secteur le secteur artisanat est un secteur euh, d'émergence et de léegi nag loolu état ci boppam da ci war a gën a bàyyi xel parce que boo bëggee def euh, croissance euh, mën nga ko jaar ci secteur artisanat émergence bi ñuy ut tey dem naa Maroc safi comme ni ma la ko waxee boo demee vraiment ñoom lépp dañ koy jëlee au Maroc duñ nangu dara génn fa donc lépp dañ koy produire à partir de Maroc mais ñun est am nañ possibilité boobu ak moyens yi. possibilité bi am na fi parce que bu ñu waxee ay eh, loolu dafa laaj ay investisseurs parce que nit ñi nga xam ne ñu ngi investir te seen alal nañu mën a investir ci secteur boobu fekk nag ñu xam ko mais possibilité bi am na parce que tey tannerie moderne boo xamante ni war na mën a am ci Dakar gi Sénégal boo ko dee xool amu fi am na fi ay tannerie yoo xamante ni ñu ngi tëdd di nelaw te boobu rek tey bu ñu ko doxaloon tey ba Sénégal yi mën cee mën cee mën am der bu baax je crois que waxuma la sax lay liggéey ci tannerie ba mais la ko commencé ca ramassage yu der ba la ko commencé ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo koy indi ba mu ñëw ci usine bi loolu rek vraiment c'est c'est euh, nekk na loo xamante ne ni mën na gën a. Euh, yokk économie réew mais mais mais kon yow da nga jàpp ne euh, coordonnerie ak euh, yu mel noonu jàpp nga ne Sénégal war na fee mën a jaare pour suqali ko. amee ah, mais bien sûr boo xoolee te tey jii Abdou Khadir tey boo xoolee boo demee ci agglomération Médina agglomération Médina bi nga xool di ko wër mënuloo estimer ñaata cordonniers ñoo fa nekk. Ah, c'est c'est des de cordonniers yoo xamante yi ñu ngi toog entassé wu ci ay atelier di liggéey dans des conditions très difficiles nga xamante ni boo ko dee xool secteur la boo xamante ne ni li ñuy wax les petites et moyennes entreprises ñoom ñoo fa dajaloo nga xool nag sous région bi yëpp fa la ñuy jëlee si daal muy hmm. Guinée ay Cameroun muy Guinée Bissau la Sierra woon ñoom yëpp dañu ñuy si daal mais mais kon da nga xalaat ne ñooñu nekk Medina état waroon na leen man a déménager defaral leen fenn foo xam ne euh, fu am espace lay doon euh, teg fa moyens yëpp matériel yëpp sécurité et tout ça euh, pour ñu mën a liggéey correctement. waxuma sax non seulement mu déménager leen mais war nañu mën a am espace xamante ni dafay gën a yaatu xam nga boo duggee ci atelier yi da ngay fukki nit ñu nekk ci benn surface boo xamante ne nii surface bi dafay xat nga xamante dañuy liggéey en même temps di aspirer col gi di aspirer produit chimique yi muy kaw si bi nga xam moo jógi daal yooyu baaxu sax ci dundu doomu aadama mais amuñu choix léegi nag état bi waxuma sax non seulement ñoom ñu yemale leen ci loolu muy muy ñi nekk Médina ak ñi nekk partout ailleurs parce que boo demee à Touba noonu la ñu mel nga dem à Diourbel noonu la ñu mel Kaolack aussi condition de travail yëpp. moo yem système boobu Ngaay Mexe aussi. nga ñëw Mexe boo demee Ngaay tey jii daanaka boo xoolee li ñu produit ci daal day métti parce que boo demee Ngaay man dem naa fa maa ngi nuyu au passage euh, Assane Kassé kii mooy président bi euh, nga xamante ne nii boo xoolee li ñuy liggéey euh, ci daal boo ko évaluer day dem mille et quelques paires par jour parce jëlee atelier yi nekk Ngaay nga jël atelier bu nekk ñu cinq paires wala dix paires par jour boo ko calculer ça fait mille et par jour léegi nag ñu problème commercialisation parce que boo liggéeyee daal yi ba noppi te amul foo ko jaayee ça pose problème te loolu nag actuellement fi la réew mi toll Sénégal yi consommé wuñu ko à cent pour cent ba noppi amuñu ay exportation boo xamante ni dina mën a tax lépp ñu produit jaayi ko loolu nag. waaw mais mais loolu tamit sëñ Assane taxawaay bu état bi waroon a taxaw la ak promotion boo xam ne état bi moo ko waroon a def. loolu ak moyen yoo xam ne jàppandal goo xam ne waroon na ko mën a jàppale euh, ñi nga xam ne ñooy cordonnier yi ci ci wàllu woowu xam nga xam nga xam nga dafa am ñaari ñaari boo ñëwee ci artisanat may nuyu d'abord au passage le ministre euh, Pape euh, Amadou Ndiaye bi nekk Thiès nekk le ministre de l'artisanat ak li ñuy wax du secteur informel ma di ko nuyu au passage parce que moom it dafa ñëw nekk gan ci secteur bi wax dëgg yàlla am yéene taxaw jàppale secteur bi ànd artisan yi mais damay wax ne ak ñi nga xam ne ne ci agence yi comme APDA nekk li ñuy wax ASEPEX ñooñu dañu nekk ay directeur ak waa COSEC euh, ma di leen nuyu au passage mais dañuy wax nit ki il faut nga impliquer ko ci système bi ngay def bu ko defee mu mën ci indi xalaatam pour nga mën a am un résultat très positif loolu nag euh, gis nañu ne vraiment ñoom ñi ngi liggéey mais liggéey ba tey des na. parce que ñun mais est-ce que dugal nañ leen ci. ah non nous ne sommes pas impliqués xam nga li ñuy def mooy euh, dañuy dañuy accompagner ci bu ñu waree dem ay foire mais accompagnement bi nga xamante war na am dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ba ñu secteur artisanal xam ne accompagné nañ leen ci filière yëpp nag loolu ba tey dafa des. d' accord léegi xam nga sëñ Assane problème mu Sénégal. Mhm. lii mooy problème mu Sénégal dëgg dëgg dëgg. Mhm. ndax xam nga yow nga def ci benn métier quarante six ans. Mhm. yàgg ci. Euh, li nga ci xam tey. Euh, jàpp naa ne sax ministre bi xamu ko si. ah waaw loolu am na tey ñu mel ni yow ak bëri na ay secteurs mel noonu aussi. Mm-hmm. boo demoon ci napp gi mu am mais ku la jëloon tey dugal la fu mel ni yenn ci mm-hmm. institution yi nga xamante ni mooy xam conseil économique social environnemental fi ñuy xeltoo yu mel noonu mm-hmm. wala ci biir ministère bi conseil am wala nangam a nangam loolu dina am solo mais gis naa ne lu mel noonu ñun suñu gouvernement bi duñ ko faral di def waaw xam nga Abdou Khadir li may njëkk a saluer mooy xam nga ni dañu boole rek nga nga jël ma comme euh, tey invité du jour loolu aussi ma ciy sant yàlla mais damay wax ne artisanat euh, xamuñu lépp mais xam nañ ci lu bëree bëri te euh, ki nga xamante ni mooy borom réew mi au passage ma koy saluer parce que gis nañu effort yi nga xam ne ñu koy jël jëmee ko secteur artisanat euh, muy son excellence monsieur le président de la République mais damay wax ne nit ki euh, dafay da ngay soxla xalaatam de fond en comble mooy nga am un conseiller wala des conseillers ci secteur artisanat pour nga mën a réussir dëgg dëgg dëgg say ambition ci secteur artisanat parce que dafa nekk secteur bu complexe te artisanat ak agriculture ak élevage ak pêche nekk na yoo xamante ni réew réew bu développé moom moo la développé moo tax damay wax ne lu ñu gën a mën a taxawaat secteur artisanat nañ ko ci taxaw parce que tey dañuy waxtaan rek ci ci li ma li ma nekk mais bu ñu demontee ci bois noonu laa ko xamee parce que nekk naa Cameroun pendant sept ans di fa jël bois dem ci forêt yi di fa jël bant ñu di ko dagg muy bant yi nga ñu muy dibicu ñu di ko envoyé au Sénégal mu nekk secteur boo xam ne aussi maa nag moo menuisier waaye xam naa ko bu baax a baax a baax. d'accord kon réew mi voilà. d' accord jërëjëf euh, sëriñ Assane Mbow euh, mbokk yi moom nag euh, li ñu waxtaan tey lu jëm ci wàllum cordonnerie ak maroquinerie sëñ Assane nag il faut que ñu arréeraat tuuti. ci ci mhm. ci ci bi. léegi bi ngay nekk Soumbédioune. Mhm. boobu ngay am 17 ans 18 ans jàpp 20 ans di dem. ndax mhm. métier bi ni mu doxee woon jamono jooju. ak ni Sénégal yi doon consommer dàll daal mhm. yeeg saag yi ngeen doon defar ndax léegi gis nga ne am na métier mi dafa gën a dafa gën a riche dafa ëpp xaalis wala bu njëkkal a gënoon a dox. waa léegi foofu dafa am solo puisque boo xoolee anna yooyu ndax boo waxee artisanat wax tourisme xam nga bu ñuy wax secteur artisanat réew mu mën ci doon la ko soxli dëgg dëgg dëgg mooy touristes yi jóge à l'étranger di ñëw ci réew ma boo xoolee nag pendant presque ma ñoo wax na ces ces quinze dernières années c'est artisanat tourisme bi dafa wàññeeku parce que économie mondiale bi moom moo waral loolu mais bi ñu nekk suñu jun li daan ñëw pa ci ay bateau au Sénégal ci wàllu tourisme ñëwatul loolu nag tax na jamono boobu vraiment secteur bi doxoon na parce que ñi doon def les objets d'art nekk ci wàllu bijouterie nekk ci wàllu cordonnerie maroquinerie boobu dañu gis seen bopp baax a baax différence bi foofu la parce que nit moom laa la wax liggéey ba pare léegi commercialisation bi poser le problème jamono bi nga mën a amee dara rek mooy ay événement bu amee tabaski korité ainsi de suite màggal jamono boobu ci la nit ki mën a profité liggéey mais bu loolu weesoo rek day nekk ci loo xamante ne ni dafay wàcc kon li ñu gën a a suqali encore mooy wàllu tourisme jéem a fexe ba hôtel yi yomb euh, jàmm am na Sénégal loolu moom ñëpp xam nañu ko parce que touristes yi gis nañu ne sous région bi dëkk bi fu ëpp jàmm yàlla ko yàlla saxal mais loolu mooy gën a suqali ab économie wàllu tourisme mu nekk ñaari fil koor yoo xamante ne nii muy artisanat ak tourisme je crois que mënuñoo taxali ko kon nag côté tourisme fi mu ne moo manqué ci réew mi parce que boo demee tey foo mënti dem William Ponty gars yi ña nga fa toog di jaay marché Kermel nga réew Soumbédioune boo ñëwee da nga leen di da nga yéemu ci yàlla parce que nit dee xëy suba ba ngoon jot jaay benn objet rek nekk de sérieux problème kon je crois que nañu waxtaan ak ñi nga xamante ñoo nekk ci secteurs yi moo xam cordonnerie la moo xam maroquinerie parce que agence yi fi nekk tey jii liggéey ci wàllu artisanat tant que impliqué wuñ ci ñi nga xamante ni dañu jàppale c'est des ay artisans lañu dañu nekk secteur informel résultat bi ñu bëgg duñu ko am nañu woo ñi nga xamante ñoo nekk ci filières yi di waxtaan ak ñoom euh, su ko defee dinañu mën a atteindre seen objectif bu ko defee ñaxtu bi dana jeex ci ñoom ñoom aussi résultat bi ñu bëgg ñu am ko mais jël koo xamante ne li nga koy liggéeyloo moom xamu ci dara istiloo rek la xam bu ñëwee di la defar ay rapport rapport yi dafay dafay dafay négatif du positif loolu daal laa leen mën a wax ci euh, actuellement fi réew mi toll. d' accord jërëjëf euh, Serigne Assane Mbow mbokk yi réew mi FM ngeen di déglu seen émission petit métier muy am samedi bu jot bu 13h30 jotee jàpp 14h ñuy waxtaanee euh, tey ji nag li nga xam ne moo jëm ci wàllum cordonnerie ak maroquinerie invité ci Serigne Assane Mbow léegi nag sëñ Assane. lu ñi nga xam ne ñooy cordonnier yi tamit dañuy faral di ñaxtu lu jëm ci wàllum chinois yi dàllu chinois yeeg xeet yooyu. yow loolu lan moo ci sa xalaat. waaw xam nga dalu chinois moom euh, dafa am ay dafa am ay ay ay ay catégorie xam nga boo ñëwee euh, ñun li ñu liggéey tey wax dëgg yàlla xale yi ñu ngi koy jaay ñu ngi dox parce que Sénégal yi dem nañ ba am conscience ne vraiment ñu ngi seen dàll yi dàll yu baax la parce que boo naree jënd dàllu chinois deux mille francs nga dem jënd dàllu Sénégalais au mois lu mu néew néew néew prix yi xam ne ñoo ci gën a ndaw mi ngi jar entre mille cinq cent ak mille sept cent franc jënd ko dafay gën nga jënd daalu chinois parce que contexte yi bokkul ndax daalu chinois ñoom pour ni ñu koy liggéeyee seeni dëkk du tàng te fii ñu nekk di Afrique de l'Ouest dafay tàng boo demee tey Asie yenn tàngoor yi amu fa yooyu nag il faut que nit ki xam ko parce que chinois bi daal bi col bi mu utilisé ba nga xamante ne nii fay dafay sedd du gaaw a dagg la ak fi nga xamante ñun col yooyu la ñuy utilisé nga xam daal bi lu mu néew néew néew mën nga loolu nag euh, ñun dañuy wax ne chinois yi. importation bi li ko waral mooy euh, parce que ñun li ñuy produire dafa bariwul parce que tey da ngay koo xamante ne nii tey day nekk ci benn presque cent paires dàll war cee liggéey presque deux semaines loolu euh, bu paree dàll bi li mu ko war a jaayee sax du ko ko jaaye parce que du évaluer temps bi mu ciy def mais du sax évalu du def évaluation sax ci li mu ci utiliser comme matière yooyu nag je crois il faut nguur gi gën cee jàppale waat artisan yi ñu am ay formation am ay centre d'incubateur parce que tey ñàkk sa ay centre d'incubateur mooy nga xam ne foo de boo am na foo xam boo fa duggoon tey équipement boo soxla ci wàllu defar lu jëm ci daal da nga ko fay fekk ak wàllu coordonné maroquinerie yooyu lay jàppale ba nga xamante ni tey boo waroon a tey xëy dagg mille paires di ko mën a def en une journée su ko defee sa production mën a gaaw boo noppee nañ jéem a xool ñu koy euh, commercialisation mais xale yi moom en toute honnêteté li ñuy liggéey man de nekkoon ci jamono ak ni ma gis liggéey bi di ko doxal léegi nous avons de grands grands grands professionnels dans le secteur dans ci filière cordonnerie ak maroquinerie xale yi jàmbaar lañu formation daal lañu manqué parce que tey jii nit ki war nga koo wax war ngaa war nga am na ay mesures yoo xamante ne ci wàllu daal il faut nga jàng ko xam ko bu ko defee yenn montage yëpp bu ko defee xale yi gën koo maîtriser parce que côté boobu rek mooy li manqué secteur bi ci wàllu cordonnerie comme ci wàllu maroquinerie. mais lu jëm ci wàllum euh, commercialisation bi tamit euh, yow yaa ngi siy wax euh, loolu ban taxawaay la ci état bi sa état bu Sénégal war a mën a am ndax gis nañ bu ñu ko produire fii tamit léeg-léeg yóbbu ko bitim réew jaay ko wala ci sous-région bi dafa xaw dafay poser problème parfois. bon wàllu commercialisation xam nga li tax ngay wax nii xam nga chinois yi bu fekkente ni ñu ngi indi dàll yi di ko indi ci yenn yenn yenn quantité yi dafay bari. parce que tey bu li wetti wóor mooy bu fekkente ne def nañu benn évaluation xam ne kat daal au moins euh, deux millions de paires dana dugg par année au euh, dana dugg Sénégal par année bu ñu defoon bi mën a permettre les Sénégalais ñu mën a produire au moins lu mu néew néew ñu mën a produire ay presque ay euh, un million wala trois millions de paires par année ba nag waa réew mi di ko consommer su boobaa commercialisation du am problème mais tey chinois li ñu fiy dugal waxuma du chinois yi rek y' a pas que les chinois parce que commerçant sénégalais yi dem Turquie ñi dem euh, yeneen dëkk yi Dubaï di jënd ay daal di fi indi loolu aussi ñoom dañu bokk ci li nga xamante ni ñooñu xañ suñu wàllu commercialisation dàll yi yooyu nag il faut que état bi mën ci accompagner ci kaw nag ñu ñu mën a produire loo xamante ni dina doy parce que ma wax la Sénégalais bu nekk tey Sénégalais bu nekk tey population bi ñaata la nga yaakaar population Sénégal bi ñaata la. ay ñoo ngi wax ay ay seize millions xeet yooyu. bon nañ jël à peu près treize millions de Sénégalais ñu ne léegi chaque année benn Sénégalais bu nekk en moyenne dina sol ñaari paires daal kooku ça fait combien de millions de paires de chaussures. waaw dëgg la de tey yi mën nañ ko liggéey tey Sénégal lu mu néew néew dina sol benn ñaari paires daal par année. waaw léegi nag loolu bu ñu ko évalué tey mais c' est des milliards. c' est des milliards non bu dee jigéen ñi sax daf koy ëpp bu dee jigéen dana ma diis. voilà bu dee jigéen ñi daf koy ëpp léegi nag loolu nag foofu la ñu war a xool nu ñuy def ba Sénégal yi di gën di mën a. a non non mais euh, sëñ Assane. mais tamit euh, jàpp naa ne am na loo xamante ni tey yow nee nga xam-xam bi ma ngi fi. Mhm. Euh, li ñu ko war a mën a liggéeyee tamit bu ñu si góorgóorloo mën nañ koo amee fii ci réew mi. Mhm. Euh, léegi nag état bu Sénégal moom est-ce que farataal na consommer local naam ma ngi koy wax mais est-ce que farataal na ko aussi. ndax tey euh, li tax mu wax la loolu. Mhm. mooy tey par exemple tey man ci sama xel mu gàtt jàpp naa ne tey. Mhm. Euh, dàll yi. Mhm. am na dàll yu moderne yoo xam ne boo demoon Médina tey ñoo ngi la koy liggéeyal. yu rafet. yooyu tey gis naa ne état bu Sénégal defuñu ñoom promotion bi. ndax buñ doon def promotion bi tey. Macky Sall si boppam ñoom conseil des ministres mënoon nañoo taxaw sol ay dàll ne dàll yi ñu def sol euh, Assane boobu moo ko liggéey di ab doomu réewum Sénégal mhm. ñu wane la ci conseil des ministres wane la ci RTS su ko defee Euh, maraîchère bi sax bu ko gisee day xam ne kii doomu Sénégal daf ciy kontaan. Mhm. loolu bokk na ci li def promotion bi tey mais gis nañ ne loolu euh, amul bu doon ceinture yi ñu takk defuñu promotion bi euh, lu si ëpp daal est-ce que tamit ñoom taxawaay bi ñu war a am dëgg dëgg dëgg ngir métier mi suqaliku état bi def na ko. boo xam nga ñoom damay wax ne du ma wax ñëpp mais bari na ci ñoo xamante ne benn benn du ñu sol lu dul consommer sénégalais ndax boo xoolee ci wàllu ñëw wax dëgg yàlla léegi moom ñoom ñëpp. koo ci xool presque ay costume yi xew léegi moom la ñu sol ba tey jii sous région bi yëpp boo ko dee xool tey Sénégal yi euh, ñoom daanaka boo dañoo soqali ci sax Afrique ci wàllu habillement mais nag dañuy consommer li jëm ci wàllu mais wàllu coordonné ak marocain rek foofu la problème bi nekk parce que new na ko gis am dafa yor un cartable boo xam ne c'est fait au Sénégal parmi un parmi ngay gis du ma sax ceux qui sont euh, nekk ministre yeneen mais euh, le citoyen sénégalais rek néew na gis bu yor sac boo xamante ne ni dañ koy liggéey ci réew mi kon loolu aussi je crois que li ko waral mooy pour mënuñoo produire quantité boo xamante ni tey obligatoirement tey boo gisee saak boo xam Sénégal lañ ko defee nga jënd ko ci benn prix boo xamante ni dina tolloo ak sa mën-mën ci wàllu njënd kon loolu ñoom it ñoom ñi nga xam ñoo nekk ci kaw dañu war a gën a góorgóorlu bu ñu demetee ci foire yi bañu ñëw di xool rek di apprécier mais non bu ñu apprécier ba pare ñu jënd parce que ñëw xool artisan bi mu wëral li mu liggéey maa ngi rappelé wu je vais vous dire ma wax la benn euh, na ko fi yàlla gën a yàggal dafa ñëw da doomam dana ñëw village doomam bu jigéen yàlla dogal suñu benn ma ku ñuy wax daam waaj mu nekk wëllëreem benn bis mu liggéey benn sac ak benn ceinture ak benn dàll foire de Dakar jot mu ñëw jox ko fa Abdou Diouf jël ko président Abdou Diouf jël ko bi mu demee ba këram toog bi mu solee dàll bi ci këram dafa yéemu ci yàlla dafa daal di woote fi saase ne ko ndax yaa liggéey dàll bi mu ne ko maa ko ne ko lii de na ma parce que daf ko sol mu jot mu takk ceinture bi ne ko lii de vraiment lu ñu war a gën jàpp euh, la euh, euh, ndem si yàlla si muy jiboka ñëw na fa ànd ak Valéry Giscard d'Estaing benn jour un matin ba ñëwee keroog c'est c'est c'était la même chose mais ñoom il faut ñu jàpp ci bu ñu dematee ci foire yi nga jënd lu tolloo sax benn valeur cinq cent mille wala trois cent mille wala cent cinquante mille ci article yi nga xam ne Sénégal yi ñu ngi koy defar. waa mais mais Assane Assane yéen tamit yéen tamit seen stratégie est-ce que du woon tamit ngeen defar ay saak ak ay dàll dem ci autorités yi nga xam ne tey euh, ñoom mën nañ leen defal promotion ngeen jox leen ko ndax ñoom possibilité bi ñuy am dem ci télé yi dem ci rajo yi fenn fu nekk ñu tukki fa ñoom dinañ mën leen a defal promotion boobu. waa xam nga ñoom dina am souvent lu ñuy commandé muy jamono ay séminaire te yooyu yeneen façon saak lay doon. mais xam nga ne artisan boo xamante ni. non waxuma commandé tey par exemple tey xam nga yow boo defaroon tey dàll wala nga defar saak dem jox ko benn autorité wala benn kilifa wala benn koo xamante ni tey euh, animateur la wala dara la euh, loolu bokk na si li yokk promotion métier mi ndax euh, ni nga koy joxe exemple ci Abdou Diouf xam nga xamu ko woon. tey fi mu nii am na ay autorités yoo xam ne ñoo ngi si réew mi yéen mën ngeen a jàpp ne xam nañ ko xamuñu ko woon mënoon ngeen a defar dem si benn député ngeen jox ko su ko solee mu gis na jàpp na rafet na mën na taxaw assemblée nationale wax ko mën na taxaw feneen ak feneen wax ko waaw xam nga xam nga xam nga xam nga euh, je crois que defar dem di joxe euh, ci koo xamante ne ni la muy defar boo demee sax amul leneen loo xamante mi ngi parce que defar bi doo defar rek dem joxe ko gratuitement comme ça day am gars yi ni ngi defar dañuy maye dañuy maye xoolal li ñuy defar di jox li leen di ko jox ñenn yi bari na du jeex du xaaj mais mënoo dëkk ci defar di joxe parce que nit ki damay wax ne même bu defee gars yi xam nañu ne réew mi xam nañu ne les artisans sénégalais ci wàllu cordonnerie maroquinerie mais am na fi ñoo xam ne du ma seen tur ci rajo bi mu mel dama def publicité mais xale yi jàmbaar lañu dama ne la man damay impressionné wu ci xale yi liggéey liggéey daal xam nga man métier xam naa ko te et puis nit ku bëgg solo laa mais dama ne je suis impressionné ci wàllu ci wàllu artisanat ci wàllu filière euh, ñaari corps de métier muy cordonnerie ak maroquinerie xale yi vraiment jàmbaar lañu te da ngay fekk benn xale boo xamante ni fi mu nekk danga naan kii affaire bi nan la ko mënee nga xamante kooku li ko manqué mooy ko ko accompagner ci li muy liggéey ñu mën a fexe ba commercialiser ko loolu nag euh, ma wax leen ne ñun am nañu benn collectif bu ñu taxawal muy le collectif des cordonniers maroquiniers du Sénégal am na loo xamante ne bi ma demee Maroc ñu ngi ko fi bëgg a taxawal pour que ñu jéem xool su région bi lépp lu ñu fi liggéey ci wàllu dal ak ci wàllu cuir daal ak sac noonu la ñu mën a fexe ba ñun ak sous région bi ñi nga xam ne c'est des ci wàllu euh, euh, collectif boobu nga xamante ne nii moom moo am déjà au Maroc nan la ci Sénégal yi gën a impliqué woo ba wall suñu commercialisation ak Afrique ñu xool nan ñu téye bunt bi ba nga xam ne lépp lu ñuy bëgg daf koy amet ci Afrique mais pas ñu di ko jëlee ci yenn dëkk yi ñu ngi ci. yàlla ñu ci yàlla boole suturaal. mais ngi ci ñu ngi ci euh, ak maroquinerie bi ngay wax nii ci dendu Afrique ban réew moo ci raw. xam nga sénégalais yi dama lay wax ne ku leen dàq liggéey amul xam nga man boo xoolee dëkk yi nga xam ne ñoom la ñu gën a jege parce que man dama jàng métier am na jamono boo xamante ni ni daaw ñawee da amuñu ay machine amul woon donc liñ daan ñawee yenn yi mooy loxo lañ ko daan ñawee di ko ñawee ak der booba moo doon euh, liggéeyu traditionnel dañ ko fay fekkoon nga xamante ne ngaay boo fa demoon tey nañ daan liggéeyee dàllu ngaay marakisu ngaay ak ñi liggéey marakisu ngaay tey bokkul parce que bu njëkkoon ngaay dañ ko liggéey ci deru pour xam nga pour. pour déré deru pour déré. pour mooy deru yu jaune nga xamante ni booba couleur boo teente sax ça pose danoon problème di fab der di ko liggéey ci gujumba xam nga yooyu dafa nekk loo xamante ne ni gujumba boobu da ngay pour nga colorer der bi dafa am ay bat ay matière weñ yi ngay dajale weñ ay weñ ngay dajale def ko ci benn bool ba mu mën laa génneel colo boo xamante ni nga ci mën a couleur sa der léegi nag étape yooyu dañ koo passé. d'accord léegi Sénégal yi ñu ngi ci beneen niveau. jërëjëf mais wax. Ah, waaw pour wax la pour wax la. <laughs> ni daal euh, secteur bi wàllu filière cordonnerie ak maroquinerie sénégalais yi jàmbaar lañu li ci des moo ñu leen accompagner ñu mën a am ay machines modernes sophistiquées yoo xamante ne nii wàllu coupe duñ ci am problème wàllu montage duñ ci am problème. loolu état moo ko war a def waa état daf nga tey y a les banques yi ñu ngi fi parce que tey ñun ñu ngi organiser wu am ay kuréel ay ay association mais tey pour nga am euh, banque bu la mën a accompagner ci équipement boo xam day dem presque ay cinq cent millions voire presque un miliar loolu xam nga yombul loolu yombul donc état bi. am na ci benn. état moo leen war a mën a garanti. état moo ñu war a mën a garantie parce que am na lu ñuy wax a un fonds de garantie boo xam a garantie boo xamante artisan yi dañu pour mu ñëw fi muy fonds jib donc loolu nag euh, boobu na souvent fa le problème bi nekkee. mais dañu war a mën a accompagner garantie ñu ba ñu am ay machine yu moderne yoo xamante ni vraiment dinañ dépasser yenn détails ay parce que Sénégal yi am nañu volonté liggéey. te liggéey bi ñu ngi koy def ci anam boo xamante ni. bu mucc ayib la jërëjëf euh, Serigne Assane Mbow maa ngi lay sant di la gërëm. maa ngi lay gërëm baax a baax merci beaucoup. jërëjëf euh, Serigne Assane Mbow mbokk moom la ñu invité woon ci seen émission petit métier ci rajo réew mi FM ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck euh, samedi bu jot bu 13h30 jotee jàpp 14h Mamadou jaaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi li ñu doon waxtaanee lu jëm ci wàllum coordonnerie ak wàllum maroquinerie euh, jërë ngeen jëf ba samedi bii di ñëw incha allah.